semaine lamb la semaine bi moom tàng na jër vraiment amateurs yi kontaan nañ supporters yi kontaan nañ ku ne gis na face to face bi nga xam ne moo amoon keroog ci Modou Lo Ama Baldé Ama Baldé ñëwul léegi ni ko laay kàddu yi mu fa yëkkati mook Baye Ndiaye waaye nag ñu jëm bés mu di dimanche bii di ñëw bi su topp incha allahu rabbi muy diggante Modou ak Ama nekk lamb ju jur coow nekk lamb ju bëri polémique aussi tamit ci noonu laay dalalee Serigne Abo Diop ah, di damay wax ni néew na lool lu muy génn ci yu mel ni xam-xamam màcc na lool doon koo xam ni it ndaw ñi dañuy taataan ay waxam waaye mag ñi dañ koy taataan te damay wax ni dëkk bi bu tollee fenn fi ah day baax nga jël sa micro dem seeti ñi nga xamante ni bu ñu waxee ndaw ñi sabablu ko bu ñu waaye bu ñu waxee it ndaw li taataan ko ci noonu laa koy daralee fas yéene si ak moom waxtaan sëñ bi maa ngi lay nuyu di la siyaar bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala haadi l amin wa maolana muhammadin ilmakin wa ala wa sahbihi sabir ridwani wa tamkin maa ngi nuyu mboolem jullit nuyoo ba gën a rafet te gën a yell ci diggante jullit ak moroomam te moo di wa rahmatullahi wa barakaatu di la uh, fay nuyoo di sant bu baax ci jataayoo ak yow ndax sama jataayoo ak yow lenn rek moom mooy sabab bi te moom moo di li ma yàlla sédd ci xam-xam ma fas yéene dimbali képp koo xamee ni ne naa la ca ndax nit ku nekk la yàlla def ci yow rek ci nga mën na dimbalee sama morom doomu aadama yi. te ñi ëpp ci doomu aadama yi dañuy sonn di dem fu nekk ci àdduna lu ju bari xam-xam ban fa doon yaakaar. wute lool ak lan fay fekk. Mhm. te ndegam yàlla may na ma ay xeet xam-xam yoo xamante ne si ni fii ci àdduna kat gàllankoor yi doomu aadama bi mën a toll fii ci àdduna yàlla may na ma xeet xam-xam yoo xam ne mën naa ko caa taxaw ba mu génn ca gàllankoor yooyu. àllaaxira nag xëy na la fay defar mbiri nit ki moom doom jaam bi moo ko fay liggéeyal boppam. moo tax daal maa ngi sant bu baax ci jataayoo gi ma jataayoo ak yow ñu fas yéene waxtaane ci xam-xam. Mhm. waaw loolu maa ngi ciy sant bu baax bëgg naa nag. ah xanaa ma ñaan la ndax man dama jàpp ni euh, xam-xam bi yàlla def ci man responsabilité la boo xam ne bu ma ci taxawul képp koo xam ne tane naa la ci boo liggéey dinaa ko lay sa borom mooy la alxuraan di wax ne summa la mhm. moo tax ma sant bu baax ci jataayoo ak yow waaye maa ngi ñaan ñi may topp bun yam rek ci diglu ma waaye maa ngi leen di ñaan ñu teewlu émission bi ba mu jeex takk teewlu mhm. danañu dégg dëgg dëgg xam-xam mhm. parce que ki yàlla may xam-xam bu dee wax da xam ne kii maanaam sore na lool ak koo xam ne yàlla mayu ko loolu borom bi moom moo ko wax borom bi moo wax ci téeréem bu tedd bii nii xul xal yastawi lazina yaxlamuun wala lazina laa yaxlamuun ñi am xam-xam ak ñi amul xam-xam mënuñoo yem ba mukk ah ma da xëy na yàlla mayu ma man yëpp waaye boo ma digloo rek nga xam ne yàlla may na ma xam-xam bisimilah kon maa ngi lay ñaan yow mi may topp toppal émission ba mu jeex yow mi may laaj itam maa ngi lay ñaan nga terale ma xam-xam parce que borom xam-xam boo ko dalalee la nga koy terale mooy nga laaj ko dëgg dëgg xam-xam bisimilah. am na solo sëñ bi ah, fi may njëkkee nag muy actualité ndax sëñ bi damay wax ni wax dëgg yàlla daa neex waxtaanal euh, actualité bi sëñ bi Ama Baldé Modou Lo war a bëri dimanche bii di ñëw làmb ji jur coow jur polémique keroog signature ba gisuñu ñu Ama Baldé euh, combat boobu tey. waaw man euh, soo ma ko mayee li ma gënaloon ñaare daanakaa ni sax bëgguma ci di àddu ndax yàlla dafa def man daanakaa ne xeetu turu yàlla samay xeetu xam-xam li ci ëpp ay turu yàlla la yoo xam ne dama koo tërbiyewu ba saa borom subhaanahu defal ma ci dëgg dëgg tawfeex mm-hmm. moo tax ñaare soo ma ko mayoon Mm, ñaare daanaka du ma du ma du ma bëgg a ci wàllu woowu ndax kat ñoom ñi nekk ci wàllu woowu yàlla dama cee boole lool ay nit. Mm-hmm. surtout sax combat boobu nga wax noonu. Mm-hmm. ñaar ñi kenn ki lool day samay nit lool lool te man yàlla dafa def nii man du may ñaan ci faral di làmbo mm-hmm. ndax turu yàlla yi ma amee moom moo tax. waaye wax dëgg yàlla mën naa ni rek. Mm, waaye wax dëgg yàlla ñaare tur yàlla yi ma tër sax ci nit yàlla ñaare baaxawuma ci di ci ñaan yàlla lu jëm ci wàllu woowu donte ni nag jëmmi nit ki rek moom a intéressé xëy na loolu ñaare am foo la ak euh, ak lu ni mel lekk waaye wax dëgg yàlla nga xam ne man jëmmi nit daf ma yitteel ba nga xam ne nit ki lim nekk man am ma jafe-jafe boobu xëy na donte du ma ñaan ci wàllu waaye jëmmi nit ki moom dinaa ko ñaanaan. Mhm. ba tax na ñoom ñaar nag am na ci koo xam ne wax dëgg yàlla sama féete la. daanakaa ni man na ma ragal féete day xañ a wërsëg. Mhm. dama yegg sax ci tur wi. mooy ki nga xamante ne si moom moo di mbëru senes bi ki nga xamante ne si maanaam doonut workat bu Sénégal soxlawoo dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam waru leen maanaam waru leen loolu bu boo déggee may wax rek da nga daal di xam ki may wax. Mhm. ndax euh, ca ginnaaw yàlla dafa def maanaam askanu Sénégal presque 17 millions d'habitants ñëpp. am ñi ñi ëpp boog am yaakaar ci kenn kooku waru leen di doxe ak ñoom doxin wu doy waar. ba demee ba yëkkati injustice injustice bu métti di teg seen kaw di rey sunu ay njaboot di rey sunuy doom ñu dund lu métti maanaam ñoom ñii nga xam ni daanaka nu ñu mel rek gannaaw yàlla jeunesse bi la. Mhm. tey jii nag kookee ku buur boobu nga xam ne ragalut yàlla. maanaam ragalul yàlla woo leen ñoom maanaam ngir ger leen ñi ëpp ca ñoom wuyu ko waaye moom dafa bokkoon ci ñu res maanaam garder dignitéem ak maanaam xam bu baax li ko askanu Sénégal ji li ko ndawi Sénégal ji kooku su ma ko waxee ñëpp xam ko Ama Balde man yàlla dafa def daanaka du may faral di ñaan sax ci làmb waaye billaahi wa rabbul kaxabati su yàlla defee mu woo ma ak jàmm ah ngeen xam ne ku yàlla maye ku yàlla muy mënuñoo yem ba mukk Ama Baldé bu la woo Ama Baldé bu la woowee nga ñaanal ko ci combat bi. ca dëgg dëgg laa la wax. xam nga mm-hmm. combat bi leerul sax man ñaare am gi taxaw taxaw gi laa gisut. Mm-hmm. waaye baaxawuma di ñaan ci wàll woowu waaye jëmmi doomu aadama bi ma yitteel. nga xam ne lu doomu aadama na nekk ci àdduna. mën mm-hmm. naa ko ñaanal. ci kàttanu yàlla mii may ak mbaaxam moom de dafay sunu mbër. Mhm. waaw ñun patriotes yi dafay sunu mbër. Mhm. ñun ñëpp ñi am yaakaar ne sunum réew mën na baaxee te baaxee ci Ousmane Sonko. Mhm. danaa ci ñëw danaa ci indi lu yaatu. ñun daanaka ñun sunu féete moom mooy Ama Baldé waaw xeebaluñ ko mukk li mu nekk waaye ba askanu Sénégal demee ba jaaxle moom bokk na nga xam wóoru leen. wóoru leen wóorul aw askanam moo tax euh, nanu jàll nanu jàll. danaa ci indi révélation yu yéeme. waaw du yéeme nanu jàll. d' accord am na hmm. solo. Euh, sëñ bi ma ñëw ci ki nga xamante ni yaa ngi koy wax léegi mu di Ousmane Sonko euh, fan yi ñu dégg tawatam. fan yee ñu déggoon ah déppoon demoon na di def parrainage ñu rejeté ko euh, euh, tey euh, nekk na Ousmane Sonko ak société bi ndax yaa ngi am yaakaar ni élection yi di des. xam nga boo xoolee parrainage boobu ñu rejeté ko loolu da yàlla waxtu wu nekk rek mu lay gëñal mu lay muy feeñalal ni dëggam waxtu wu nekk mooy féete kaw ay fen mm-hmm. ndax koo xamee ni yëggagul ma dëggul trois mois maanaam bi ko Sénégal yëpp sëkkatalee ci ne doo def troisième mandat nga xam ni maanaam mu génn daan ni waaw ci gannaaw bu ko ndawi Sénégal yi bàyyi wut ban ko ci bàyyi wut mu génn ne du ko def waaye nag fexe na ba li ko defee ci kaw réew mi moom en décision de justice dana ko dana ko respecté lool. ku mel ni tey jii ku mel ni si saaba si fay atte maanaam joxe verdict xool fay dëgg féete mu féete fa. tey jii gis nga tey ak li ci xew moo lay xamal ni maanaam yàlla def leen a weer ñoom du nit dëgg. ñoom du nit dëgg jigéewuñu sax dëggu. Mhm. mooy mooy muy kooku nekk ci kaw nga xam ne dafa war askanu senegal yépp waaye itam ak kuréel ga ko topp ñu leen wax benn tas yaakaar parce que bokkuñu yaakaar li alxuraan di wax ni tansibuhum jamihan waaye wa qulubuhum satta boo leen gisee danga leen njort ni sax benn lan seeni xol moo gën a tàqalikoo lépp luy tàqalikoo ah moo tax ñaaree daanakaa ni euh, <laughs> ma ñëw rek ci Ousmane Ousmane de ngir tënk ci gàttal xëy na dinaa ci wax leneen ca fin émission bi waaye dama bëgg nga ñëw sama xam-xam parce que doomaa nit ñi dañ ma namoon ci sama wàllu xam-xam. d'accord fi may jeexalee ci li ma ciy tënk. d'accord mooy Ousmane sonk Macky Sall mi ngi pexe nu nekk nu nekk mu ngi koy pexe waaye xamul ni allahu akbar wallahi wal qur'aani asim wa makaru wa makarallah walla waaye wallaahu xayrul maakirin nu mu mën a pexee rek yàlla moom mooy ngën gi aji pexe ji moo tax euh, Macky Sall li yàlla bind ci Ousmane Sonko mënu ci dindi lu toll ni virgule su ko jëloon sànni ko ca tineel géej ga du teel yàlla namm ci moom def ko ci moom te Ousmane li yàlla namm ci moom namm na ko ci moom ba noppi nan jàll sama wàll xam-xam boo noppee nga daan may laaj wàll yi ma teyee ko Euh, am na solo sëñ bi vraiment tey waxtaan bi man mii sax di waxtaan ak moom vraiment sama xol dafa sedd ndax <laughs> xam nga dañ sax damay wax ñaankat ñaankat ñaankat dafa dafa dafa dafa dafa dafa war a généraliser di waxtaan ci actualité rawatina koo xam ne ndaw ñi dañ koy déglu jeunesse bi di ko déglu dem ba ñu ko tuddee ko le marabout de Sonko ndax la muy wax intérêt de la jeunesse bi ma ñëw ci wàllu ñaan sëñ bi ñaan bu buñ ko waxee ni seet waaye tey laa mës a dégg ci sama àdduna képp koo xam ne danga nga naan dama lay seetal ci sa tur wala sa turu yaay wala sa turu wayjur loolu du dëgg. <laughs> maanaam man Serigne Abo maa fi génn nii képp koo xamante ne si ni maanaam nee nga nit seetal ma mun la jox ma sa tur ak sa tur waajuru jigéen rek yem ca. billahi bul ka kaxabati tur ak tur juru jigéen kenn mënu cee gis nit. Ah. kenn mënu cee gis nit loolu man maa la ko wax xam-xam dëgg dëgg laay wax. gis nga doomu aadama bi dafa gane jamono ba am juróom-ñaari fan ñu door ko joxu tur am na ñoo xam sax juróom-ñaari fan ba bu ñëwee dañuy aj seenu tur dañuy aj dañuy aj dañuy aj tudd ma léegi loo xam ne dafa dem nit ki nan lañ ci mën a xamee nit ki yëpp mënul nekk gis nga nit ki boo ko bëggee gis dëgg-dëgg ci xam-xamu biddiw rek nga mën a sukkandiku ba gis ko dëgg-dëgg gis nga doomu aadama yi doomu aadama bi maanaam ngi ngi nga gis ko dëgg dëgg dëgg dafa am lu yàlla wax ni inna hiddata suhur hindallahi isna asara sahran fi kitabillah maanaam weer yàlla yëpp fukki weer la ak ñaar janvier ba décembre léegi nag yàlla waxtu maanaam nit ki wee weer wa yàlla namm ko mu gane ko ci mu gane ko àdduna ci weer yooyu ak waxtu woom ka gane jama gane jamono dëppoog burju biddiw ba mu dëppool maanaam ca loola la sukkandiku xam kii baanam ban nit la maanaam nit nga seetal ko dëgg dëgg man koo xam wax ko loo xamee ne dafa yaakaar sax danga koo xam loolu mënuloo ko rek ci tur ak tur waajur jigéen mënul nekk. moo tax euh, gis nga ci wàllu biddiw gis nga ci wàllu xam-xamu biddiw boobu ci nga mën a sukkandiku wax doomu aadama mboolem li wees ci moom ak li mu toll ak li ñëw gis nga seet ak kum mën a doon man su ma la ko defalee danga yaakaar ni dama laa xam xanaa doy na sëkk ni man maa am xam yow danga ma woo sama seet nag mayu ma ko kenn ku ma fayut duma la ko seetal te ma di nelaw yàlla xam-xamu tey nga la ma may dama tërbiyewu nitu yàlla ba xolam sedd ci man mu yëkkati xam-xam ba ma fu doomu aadama mën a nekk ci àdduna bu fa taa teng loxoom bii billaahi wa rabbul kaabati ma leeral ko lépp lu nekk ci moom ci jafe-jafe foto foto teng loxo rek yónnee ma ko fu mu mën a nekk ci àdduna laa la wax xam nga li gën a neex mooy dañ naan nit moo gën a xam boppam boo koy leeral nag ci lay xamee dëgg dëgg mayuñu yàlla ci yow xanaa loolu leer na man maa ne doomu aadama foo mën a nekk ci àdduna mayuma sama seet soo ma woowee yomb maa jot nag ndax yaakaar dafay bari soo ma jotee téléphone dama naan la nangam laay seete mayu ma ko kenn waaye téye ko baax seetal la ba sa xol sedd xanaa loolu mooy dëgg-dëgg xam-xam te pourtant mënoon naa ne sax jox ma ko ba nopp ma door laa seetal man naa ko da ngay lijjanti da ngay ñaan visa passeport da ngay lijjanti visa da ngay dem nga fay sa xaalis ba noppi xamoo ba xam da nga amam doo doo am. waaw sañ nañ ko. sañ nañ ko léegi nag nga ñëw ci man man maa ni la. li ngay seete li may seete bul ko tegeegun sama loxo baay baa defee la ko sa xol sedd nga xam ne yàlla maye na dëgg-dëgg xanaa kon man maam xam-xam ci biir seet googu ci laa xam ban yoon laay jaar ngir ñaanal nit ki ndax doomu aadama yi danoo wuute yoon yu ñu jaar ngir ngir defar seen mbir gis nga doomu aadama yi ñii seen mbir euh, suuf la ñii seen mbir ndox ñii seen mbir ngelaw ñii seen mbir sawara loolu mooy ñeent tabixa yi doomu aadama yi tënk doomu aadama tey jii ci misaal nit ki bu doonoon tabixam doon sawara mu ñëw ci yow nga yëkkat càngat la gën a baax ndomba ya gën a baax jox ko wala jaara ba gën a baax kooku bu ko takkee sax day gën a dellu ginnaaw moo tax nga mën a gis nit naan la sëñ bi takk naa ba sonn sangu naa ba sonn te tegul ma gis sama bopp benn njariñ day mel ni sax luy gën a dellu ginnaaw mbaa xam nga ne ñi gën a gàtt xam-xam mooy ñi génn ay ndomba naan ndomba gi nangam boo ko takkee nangam jaara bi boo ko takkee nangam loolu gàtt xam-xam la commencé gàtt mi ngi commencé ci nga génn say ndomba naan ndomba gi ku ko takk nangam dooma laaj lan moo tax li tax mooy yow doomu aadama bi xoolal a goo ko ba xam ndax loolu dëppoo naag mbiram ndéet mhm. xanaa xamoon doomu aadama tabi xam am na lu muy doon sarax rek moo mën a defar mbiram am na tabi xam fi mu taxawee maanaam lu mel ne suuf nga xamante ne si maanaam maanaam sarax waaye ak la muy saraxe maanaam gis nga nit sarax li muy baax baax nit ki bu fekkente ne xamul li muy saraxe sax mën na koo gàllankoor hmm. wallaahi wal quraan alaasim moo tax ba ñu baree bare da gis ñu dem ci sëriñ ñu leen di diggal lu nekk te dafay mel ni dana gën a nekk sax ci gàllankoor xam-xam dafa yéeme te am de man ni mhm. dem leen ngeen xool ñi yàlla may ngeen sakku ci ñoom ñaan mhm. waaw dafa am maanaam gis nga sarax lu ko gën a gaaw defal mbiri nit ki amut parce que boo xoolee li yàlla di wax yonent bi ni ko xus min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum waaye wa tuzakkihim jëlal ci ñoom sarax sarax bi nga jël ci ñoom dana leen laabal sellal leen moo tax doomu aadama yi jafe-jafe gàllankoor yu mu mën a nekk su demee ci ku yàlla may dëgg dëgg su ko diggalee sarax rek mu tàggoog loolu mbaa xam nga ni bari na ñu amoon alal lool xëy ñàkk lépp la ko waral mooy ñàkk dem ci ku yàlla may ngir mu tegtal leen sarax. Hmm. bari na lool ñoo xam ne yàlla dénk nañu teraanga àdduna mënuñoo wér. Hmm. la ko waral mooy ñàkk dem ci ku yàlla may maanaam mu tegtal leenum sarax gis nga sarax bu war a génn ci alal nit ki faw day génn ci alalam wala ci yaramam moo tax nag ñaar rek ndegam xamoo ko demal ci ku yàlla may. Hmm. yonent bu nee na yonent bi nee na xasinoo amwaalikum bi zakat waaye daawu mardaakum bi sadaqa maanaam seeni alal aara leen ko ci saraxe waaye nag seen tawat itam saafara leen ko ci saraxe mbir mu nekk nag dangay dem ca kaca yàlla may yow mii di wax man am na lu yàlla def ci yaw lu mu defut ci man kazalika mboolem ñi may diglu gis nga bâtiment bii ñu nekk maanaam mm, carreleur dafee dafee am xam-xam mm-hmm. maanaam maçon électricien. peinture kat maanaam nga xam ne ku ci nekkal la ko yàlla may man li ma yàlla may li ma tërbiyu woon bi ma jàng alxuraan ba wattu ko bind ñaari kaamin yaakaar ni nopp naa ci jàng fukki at ak benn ma tërbiyu ji ko xam-xam tey jii rëccu ma ko de fii ma toog ma toogoon ferang laayu nii wa rabbul kaxbat du ma tee tëdd te wutale waaye ba jàpp ni xam-xam bi yàlla def ci man responsabilité la ma génn ma génn leeral mhm. Seydina Ali yu dafa waxoon ni saa bu jamono demee ba ñu bàyyi ñi xamut féetewoo di wax ñi xam ni teg nee na nit ñi dañu yaakaar ni ñii xamul kat ñoom ñoo ñu xam. Mhm. te bu ëllëgee yamal xiyaam ñi xamoon responsabilité la leen doon ca loolee. Mhm. yàlla bu ëllëgee balaa mbugal kenn ku xamul woon day laaj ñi xamoon ndax xam la nañu. Mhm. waaw damaa am xam maanaam yàlla am na lu ma sedd tey jii bari na ñoo xam ne bu ñu doonee seen ndeyjooru famille ci sama xam-xam la ko yàlla jaarale. lu nekk lu bari loo xam ne sama xam-xam la ko yàlla jaarale wax dëgg yàlla moo tax maa ngi ci sant boo ma déggee may wax sax da nga yaakaar ne may namu ndamuwuma yàllaay maye lépp waaye wa wa amma bi ni'mati rabbika mm. la yàlla mm-hmm. Mm-hmm. a ngi tàng de laaj ma dëgg-dëgg xam-xam man dama am xam-xam te lépp nag ah. ci kitaabillah mm-hmm. yàlla maa farat naa fil kitaabi min shay xam-xam bu ñuul yi nga gis ñii nii xam-xam bu ñuul ak sulmaani yi maa ko ëpp la ñëpp maa ko la ñëpp waaye dama dem ba yàlla gindi ma koo xam da nga mën a dem ba tafsir alquran kon lu ñuul da ko war a sori. Mhm. yàlla bayul fii dara bisimilah. am na solo sëñ bi ma ñëw ci ci ci li nga xamante ni euh, des fois nga gis ndaw luy dox yàlla sunu borom ubbi ko mu jékki-jékki échec. des fois nga gis ku jàng école ba ñëpp ni kii moo fi raw mu jékki-jékki di redoubler des fois nga gis koo xamante ni ñëpp dañuy gis ak demam mu jékki-jékki échec gàllankooru nit sëñ bi amoo ci moroom dama am ci lu leer. <laughs> waaw damay wax ni gis nga jamono dafa tollul foo xamante ne si ni nit ñi dama leen di wax ñu dem sabab lu ji ci wàllu kaaraanga. Hmm. dafa am solo. gis nga dinaa leeral lu tax ñuy wax ni boo bëree ñu bëri sax dal sa kaw. loolu bu nga waxee nii doo ko xam dëgg-dëgg. Hmm. mais ma leeral gis nga doomu aadama juróom yi rek moo ko mën a gàllankoor muy juróomi min sarr yi alxor yi nekk ci alxuraan min sarr maa xalaqa agoo min sarr xaasin isaa waqaba agoo min sarr nafaasaat fil xadi agoo min sarr xaasin isaa xasada gis nga yoon juróom yooyu yàlla ci jëmmam moo waxal boppam yonente bi ni ko yow yonente bi neel yow yàlla yàlla nag ma musal ci juróom yi ndegam yow yàlla moo ko waxal boppam yonante bi ëssuma laa kon ñun kon ku ci nekk war na cee musulu juróom yooyu nag képp koo gis mu gàllankeer ci àdduna benn ci yooyu moo ko gàllankoor ba ca njëkk mooy iñaan mbaa xam nga ne nit iñaane la rek mën na laa rey nit iñaana la rek man na laa rey du samay wax waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi nee na sulusu xubóoru ummati la alxasadi sama xeet yu faatu ba nekk seen bàmmeel boo leen xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba iñaan moo leen rey nit iñaane leen iñaan de fu nekk la am waaye rawatina fii Sénégal la ëpp mhm. Mhm. ñaareel ba mooy bët gis nga xam nga yonent bi bu dee dañu bu dee iñaan boo sama xel boo leen xaajee ñett xaaj benn xaaj bi iñaan moo leen rey waaye yonent bi nag bu dee ba wàllu bët dana ñi ëpp ñi ëpp ñu faatu sama xel wi gannaaw attab yàlla ak dogalam ñu ngi faatoo ci sababu bët te loolu mooy aksaru man yamootu min ummati ba'da qadaa illaahi wa qadarihi bil ayni addis bi boo demee ci sahihul buxaari fekk ko fa man dëgg dëgg xam-xam laa lay wax doo dégg mukk samay wax wax yonent bi wax yàlla suñu borom mm. mm-hmm. ñetteel ba moom mooy mm, njabar gis nga def-def dafa doy waar. njabar li ma la waxoon ne la nit ñi danoo danoo toll foo xam ne dana war a fonk ñaan mooy point bii may leeral liggéey def def gis nga bari na ñaata junniy nit ñoo may seetaan ñoo xamante ni sii seen yaram dafay diis gann mel na luñ sëf suñ demee hôpital duñ gis dara la ko waral njabar la falaxa ak naas ba mu wàcc xam nga lan moo ko tax a wàcc dindil yonante bi ak njabar yaram bi dafa diis ba mënta àndale benn cër moo na loolu ñu gàllankooru te ko def bari na a baax am na ñoo xam ne sax duñ am sax gàllankoor ñoom de duñ leen waaye seen waajur la ñuy jàpp ci liggéey loolu royaat bees ñoom te jamono dafa toll foo xam ne fonk ñaan dafa jot sëkk. Mm. li nga ma njëkk laaj rek muy combat muy combat bi nii xanaa xamoo ne nit da nga fa dem rek yow maanaam seetaan dong tax la jug maanaam nga jëlee mm-hmm. yi mu sangoo li ko fangal moom boo jëlee rek wan yaasu billah mm-hmm. nit man ngay dem amoo fenn soxla maanaam génn dëgg ci liggéey man nga dend sax fonk ñaan maanaam muy jëfandiku ñaan gàllankoor di ñëw ci yow moo tax jug leen seen bopp ci wàllu ñaan ba ko juróomeel nag mooy rab gis nga rab dama cee am lu ma naqari lool fii Sénégal dafa bari ñoo xam ne dañuy woote woon dañ koy faj wut li ñuy wax ay sunguf aki reen aki di xëpp lu mel ni jigéen nga xam ne léppam awra la ñu koy filmé di ko xëpp ñëpp di gis muy wëlbatiku loolu du fajul rab gis ngeen rab ku leen wax ni mën na ko faja noonu day wax loolu ak njabar rek la rab turu yàlla moo koy faj yàlla dénk na ma ko ismullahi ansam man maa ni fu doomu aadama mën a nekk ci àdduna rab bu ko mën a sonal laa la wax de ma tàggale koog moom ci ñetti fan. ba mu des nag rabu néegum ndey. rabu néegu ndey moom mënu ma koo tàggaleeg nit waaye mën naa koo jubaleeg moom ba dootu ko mën a gàllankoor nit da koy defaral kay rab ñaar rek la benn dafay dab nit. wala euh, nit ki dondoo dond ko bu fekkente ne dafa dem nit mooy rab bi soppaliku ngelaw dugg ko bu dee nit def daf koo dond mooy rab bi nga xamante ne si nii maanaam nit ki daf koo dond ci côté wayjuru mu jigéen wala côté wayjuru góor côté wayjuru góor bu soobee yàlla ñaari fan benn fan ñaari fan mu taxaw yow côté wayjuru jigéen mënuma ko waaye mën naa leen jubale ba dootu la yàqal te ku la wax ni mën na koo dindi wax na lu juyoog dëgg rab moog doomu aadama la yàlla bind rab saa bu deñee ci yow jinne sonal la lool rab xam nga xeet xeet la ci biir junne yi mm-hmm. doomu aadama bu nekk am na ko waaye saa bu dañee ci yow junne yi bon yi sonal la lool mooy dox sa kaaraange ak junne yi bon yi léegi nag saa bu dëppawut ak yow li gën nga dem ci ku yàlla may xam-xam dëgg dëgg mu jubóole la ak moom mm-hmm. bu dee rab boo xam ne daf laa dab nag loolu mënees na koo dindi sax ci benn fan leer na mm-hmm. rab nag lu doy waar la bari na góor ñoo xam ne seen awra dafa jotoon waaye da ngay gis seen awra dellu di dellu di jëm ci gàtt bari na ñoo xam ne jigéen ñoo xamante ne si ni ñi ñàkk njaboot wala bu ñuy gis mbaax muy metti yu baree bare yoo xamante ne seen rab moo ko waral mhm. bari na sax ñuy yàqule ci wàllu alal bari na ñoo xam ne mënuñoo téye dara luñ mu yàqu am na ñoo xam bu ñu yoroon alal ni day mel ni bu demul duñ am jàmm koy waral cat da koy waral waaw moo tax ñaare nit ñi jug leen dem ci wàllu fonk ji dem leen ci ñi yàlla may ngeen sàkk ñoom ñaan mhm. ah man de damay faral di wax ni yàlla mayuma dema man yëpp waaye fépp fu doomu aadama mën a dem ci àdduna ñu jox la lu nekk ni la sangul takkal taxul nga gis ci benn njariñ maa ngi lay wax ni la laa taqnatu min rahmatillah bul naagu mukk ci yërmande yàlla na la yàlla defal tawféexi nga jot ma téléphone. Hmm. soo ma jotee dama naan la fatal sa teng loxo yónnee ma nangam la ñu teg sama loxo su ma la ko defalee ba nopp ba sa xol sedd nga teg ko sama loxo waaye bu ma commencé jëflante yow nga xam ne yàlla may na. Hmm. li a li ma gën a euh, li maanaam man li may gën a bàkkoo di ko gën a sigré woo mooy. nit ki bi muy ñëw ci man mu xam tolluwaay yi mu toll ci gàllankoor. Mm-hmm. ma tàmbali koo ñaanal ñu dem tuuti diir fukk fan ak benn. lan la yëg ci yaramam ak ba muy door a tàmbalee jëflante man lan la yëgoon dëgg dëgg xam-xam foofu la. Mm-hmm. man yàlla daf ma may daf ma may boo xoolee daanaka dëgg dëgg sama ndam ci côté boobu lay doon. Mm-hmm. xam nga fii Sénégal lu nekk prouvé naa ko lu nekk loo xam ne yëg séegut leeral naa ko. dëgg la waaye daanaka ni man fi ne nii tolluwaay yi ma toll ci dëgg dëgg. mooy nit ki nekk ci gàllankoor ma génne ko ci gàllankoor yooyu ak nu fu nga a yegg mhm. bisimilah am na solo loolooy xam-xam ndax yonente bi moo ni woon utlubul ilma walaw bi Chine wallaahi wallaahi donc nag bu ko leen ko mhm. di leen ko baaxee ñëw leen numéro téléphone yaa ngi noonu di daw ci service commercial boo ko woowee di ko jot mu di Serigne Abo Diop incha allahu rabbi lépp looleen bëgg dina leen ko defal nga baal ma da eh, pour foofu rek ñi may woo jotuñu ma nan ma bàyyil vocal message whatsapp ndax dama bokk ci sëriñ si nga xamante ne si ñun ay secrétaire yooyu du suñ mbir bu ma sañoon soo ma amee soxla ci man am yaakaar ci man mm. soo ma woowee man nga jotal sa bopp dara mm. moo tax ñaare nag wax dëgg yàlla fu téeméeri nit tooge junni nit di ma woo mënu maa jël junni nit yi. am na solo moo tax ku may woo jotoo ma itam nga comprendre nga xam ne rek ni maanaam yaakaar yee fi bari. nga bàyyil ma rek vocal yàlla dana def mën naa koo liir ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Mhm. incha allah taala. am na solo sëñ bi ma ñëw ci li nga xamante ne nag jamono ji moo tax sëy ndaw ñaa ngi ndaw ñu xamatuñ fu ñu jëm ndaw ñaa ngi naan comprimé ndaw ñaa ngi dorogew ndaw ñaa ngi dem bay jëfandikoo xeet yooyu ñuy wax ay volek lu ne ngir ñàkk kattanu maanaam <laughs> laaj nga ma loo xamante ne si ni maanaam dama ci spécialisé dama ci spécialisé maanaam euh, ñaara ngi nii yi ma gën a mën a taxaw doomu aadama mooy ci wàllu xalwatu ci wàllu xalwatu xalwatu nag ñaare du ma koy développé fi ndax xaju fi ak ci wàllu woowu nga wax gis nga wàllu wii nga wax ci wàllu kattan dimbali naa ci ba dimbali sax ñoo xamante ne si ni maanaam xamun sax luy wolof xamun sax luy wolof li ci jox doomu aadama yi c'est simple xam nga ñu bari ñoo ngi jox ay sungu fa ki reen ak yooyu man loolu dama jàpp ne ay la loolu dafa am ñu ko yàlla may laboratoire maanaam ad maanaam wàllu kii dafa am fu mu yegg mm-hmm. nan ko bàyyee ña ci wàllu waaye jël lu mel ne sunguf ak fi jamono toll léegi nga jox ko nit mu jëfandikoo ko jëlee ca lor te bàyyi leen xel nag ñu baree bari ñuy joxe xeeti sunguf dañ ciy def ay produits chimiques muy faral di gàllankoor doomu aadama yi mm-hmm. man li ma ciy jox doomu aadama du sunguf du reen mbindum saafara la moo xam daa lañ koy bindee daa. Mhm. nit ki mën naa koo yónnee bu ñëwee mu defaral boppam. Mhm. ayat alquran yi la muy innal quwwata lillahi jami'an mhm. ak waaye sidikum quwwatan ila quwwatikum su ma ko defee ni ma koy defee nit ki ndawal nag bu góor la koy toggee ba ilaa yawmil qiyaamatil akbar dootul ñàkkati wàllu kattan dina am kattan ba mel ni ko ci fukk maanaam ñaar fukki atam juróom insha allahu taala dootu ko ñàkkati ba mukk ah loolu mooy dëgg xam loolu leer na nañ loolu nag ñaare ñu ko fi soxla dafa bari liste la moo tax ku ko soxla du ma jékki-jékki itam jox ko nit maanaam nit ki balaa ma ko jox bu nee ma dama am jafe-jafe ci wàllu woowu dama koy xool ba noppi ndax li ko mën a waral dafa bari te wuute te am na yu koy waral yoo xam ne tant que gàllankoor yi nekkoon ci moom dañut loolu ngir mu war man koo jariñ nam ko war a jariñe dëgg dafa des mhm. gis ngeen nit ñi maanaam ñi leen mën a ñaanal ngir ngeen ubbiku dëgg maanaam mënta am mukk mukk te gàllankoor yi nekkoon ci yéen dañut ndab da nga koy raxas bam se du ci ñu door caa def. Mm-hmm. Mm-hmm. am na solo sëñ bi ma ñëw ci ci ci ci wàllu woo xam ne damay wax ni euh, mosuma gis ku ci mel ni yow ndax jamono ji wax dëgg yàlla euh, ñaankat yi ah yamal xiyaam lay ak sunu borom de nit ñëw ni la dama bëgg nit rek xamoo kii lan la koy doyee xamoo kii loolu la ko doyee nga dem jël sa temps jël say engagement naan mën naa koo nopp nopp ba nopp koo xam ne wax dëgg yàlla ah da cay def lu neexul yàlla. man nag moo tax damay wax lu leer naññ naññ naññ bu njëkkoon sax dama daan faral di wax ni. Mm-hmm. koo xam ne tëkk tëkkoogoo jigéen du ma la faral di defal mm-hmm. nopp. nopp gi ma amee ndax nopp la goo xam ne dafa yéeme yéeme goo xam man bu ma ko defee man mi ko def mënatuma ci dara. Mm-hmm. moo tax ba ma koy def nag damay xam fi ma koy teg. na leer naññ. su njëkkoon dama daa wax ne ku tëggagul jigéen njëru nga yegsi waaye bi ma demee ba xam ne bari na jigéen ñoo xam ne ay warkat la nit dafa jël alalam lu baree bari jox leen ñu joxante moom kàddu ba ko xëy wëlbati ko ko boobu nag laa wax ni moom léegi maanaam ku am jafe-jafe ci wàllu woowu jot ma ba ma xoolee daal ba sama xel dal na billaahi wa a kaaba dinaa defal loo xam ne dana topp ba ilaahi ma xiyam akbar ko defoon sax mënu mucc dara asuma la kaneen te sëñ bi léegi xale yi ma wax la yoo xamante ni trois mois pour loolu yëpp xam naa ko bi ma xamee ma xamee loolu yëpp nag ci laa delloo ginnaaw ci li ma waxoon ni ku tëkkagul jigéen njëru nga yegsi mhm. mu des nag ñaari way dencante yi rawatina jamono dafa xaw a doy waar te lëndam yàlla danoo mën a may lu nekk mbaa xamoo ne danañ faral di seetal ni sax Eh, teng loxoom di gis yu doy waar ci soxnaam te duñ ko ko mën a wax. dañ koy junj rek ni ko fàggul ñaan ci wàllu woowu. gis nga fu waay mën a nekk nga yaakaar ne sa soxna maanaam ab tànkam toogut. waaw bu ko defee rek léeg-léeg mu dal ma lool ma seetaan nit wax dëgg yàlla gis maanaam ci soxnaam ak wëlbati kooku yu bari waaye yooyu moom du dagan ci man ma di ko wax dama koy junj rek ñu ko defar ñaan ci wàllu wi. te lu jamono dafa àgg foofu nag gis nga nit bu la ko yàlla dénkee ñàkk ko moo tax soxna si nga xam ne dafa yaakaar ne borom këram day wëlbatiku ab tànkam toogut na ko yàlla defal tawfeex mu jot bi nga xam ne xelam dalut ci soxnaam kooku na ko yàlla mu jot ma su ma jotee li ma ciy def wallahi dana ko topp ba fu ko joxañ dana fa jëm te du ko sañ a bañ ba tey ki yàlla dénk njaboot loolu waa bitim réew ma koy jàmbat lu bari parce que foofu neexut a yar a xale ndax seen i xaanoon seen loi seen i loi moo tax ku fa yàlla dénk njaboot maanaam ñuy jaar yoon woo xam ne gënalu la nga yaakaar ci ñoom ak sànko wala leneen lu ni mel waaye waaye bul seetaan responsabilité bi la yàlla jox ci ñoom na la yàlla defal tawfeex nga jot ma mhm. billaahi warabul rabbul kaxamat naa la defal loo xam ne foo leen joxañ jëm fa te duñ ko sañ bañ mhm. gis nga yàlla jox la doomu aadama yàlla responsable maanaam def la ngay yilif doomu aadama muy doxe doxi mu neex nga ne daal naa ko bàyyi ak boppam loolu dégg sa responsabilité parce que borom bi def ni yéen ñi gëm yàlla xuu anfusakum wa ahlikum naara fegal leen seen bopp ak seenu njaboot sawara sawara nag bu ko yàlla wax sawara addunaa ci jiitu waa laaxira door a ñëw moo tax gis yàlla bu leen soxna jëru yoon moom war a jaar jot leen ma yàlla bu joxee njaboot a yàlla bépp gàllankoor bu mu teg la koy saafara la njëkk a bind teg ba noppi door a def gàllankoor boobu. Mhm. dem leen ci ñi yàlla may. Mhm. am na solo sëñ bi wax dëgg yàlla. daanaka na maa tëjee fii waxtaan wi moom xam naa ni. man ci seen bopp moom wax dëgg mhm. yàlla doyalu ma ci. waaye nag comme dafa xat. wax dëgg yàlla ku ne xam na ni yow sa juróomi minute boo ko mayee nit rek ah am na foo ko teg. dëgg la dëgg la ah, nga may ma ma tëj. waaw li may tëjee mooy Macky Sall maa ngi koy ñaanal. maa ngi koy ñaanal mu nangu dogalub yàlla dama ko yërëm. billaahi wa rabbul kaaba damaa yërëm Macky Sall Serigne Touba dafa mos a wax maam Thierno borom Daarul Muxti ni ko maam Thierno ana lan nga bëgg lan nga gën a bëgg ma ñaanal la a sa borom. mu ne ko xanaa nga ñaanal ma ba lu yàlla dogal mu neex ma. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu laay ñaanal Macky Sall. da parce que dafa nanguwul dogalul yàlla ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. te wax naa ci njëlbeen ni Ousmane Sonko li yàlla def ci moom. Macky Sall bu ko jëloon sànni ko ca tineeli géej ga du tax mu man ci moom dara te yàlla def na ko ci moom. ah maa ngi tàggatoo nag ci wàllu wi mhm. ñëpp ñu nekk ci wàllu wi ñu jégal ma nag téléphone bi wax dëgg yàlla soné gi mu soné yaakaar def bari rek waaw mhm. maa ngi maa ngi dénk ñëpp ñu nekk ci wàllu wi mooy ñiy woote woo mayinu yàlla nañu ragal yàlla mhm. te doomu aadama yi ñuy ngir yàlla bu ñu lekk mukk seenu dërëm ci neen parce que borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi yàlla laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili bu leen lekk mukk seen te gis nga alali du àq doomu aadama ak moroomam yoonu yàlla nekku ci boo gisee may tàggatoo loolu dafa bari ñu may woowee fu nekk naan ma sëñ Abo jëflante naag seen diw jëflante naag seen diw waaye dama leen di faral di wax ni ku ci yaakaar ni daf leen nax naxu leen seen bopp rek lañu nax ndax ku nekk da nga wéet ak sa borom ba yaakaar ni yow rek la bindoon loolu daal maa ngi koy tàggatoo di ñaan itam lépp loo xam ne génn nañ bay wax ni yàlla may na ma ci yii na fekk rek yàlla may leen ca yooyee mm-hmm. ndax borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla li ma taquluuna maa la tafhaluun lan moo tax ngeen wax loo xam ni mënoo leen ko wala sax du ngeen ko def moo tax daal sant naa bu baax ci jataayoo ak yéen a ah, wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu ala man ittabaha alhuda mhm. am na solo li mu wax dinaa ko dëggal ndax euh, euh, euh, wax na ko sànq de leen wax li nga xam ni moo ngeen ñi def muy kabaru maqtan indallaahi ak la ca topp. mu doon nit koo xamante ne nii wax dëgg yàlla damay wax ni néew na nga gis borom xam-xam bu mel ni moom ndax man wa ma shahid naa illaa ma alim naa dama wax ci nit lu ma xamul. Mhm. benn kilifa daf maa mës ni kaay nga defal ma émission ñu waxtaan ma jël sama xam-xam jox ko ndaw ñi. ma ne ko amul benn problème keroog ma départ war a ñëw këram ma woo ko mu def ne pas man ak sama caméraman bi ma ne ko kaay ñu ñibbi <laughs> mu ne ma lan ko kii nii dafa bëgg faj jaamu aajo jaam ñi ba pare di def ay ne pas déranger wax dëgg ay pexe la nekk mu ngi noonu di Serigne Abdou Diop ah, di sëtu Serigne Massamba Diop Sam numéro téléphone yaa ngi noonu boo ko ci woowee rek incha allahu rabbi di nga ko jot boo ko jotul bàyyi ko message di leen jox yeneen dig daje ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.